kon ñu wax ci benn fake news boo xamante ne mi ngi tourné ci biir réseaux sociaux yeeg site internet yeeg démb ba léegi mu concerne suñu papa jooju di Golbert Diagne Golbert Diagne bijou comme euh, ñu ñëpp démb dañu annoncé li nga xamante ne moom moo di desewam donc euh, mu doon loo xamante ni euh, ci saa si un temps record ça a fait le tour du net ñëpp moo xam whatsapp moo xam facebook moo xam instagram moo xam twitter faut tourner euh, gis ko mais heureusement encore moom mi nga xamante ne moom moo di Golbert Diagne euh, mu ngi fi demagul dañuy ñaan mu gën fi yàgg amin euh, yàgg fi lool lool lool sax te xam loolu sa olof yi nee nañ ni que buñ la tàggewee te deewoo da ngay gën a gudd fan donc yàlla na gën a gudd fan suñu papa boobule di Golbert Diagne nga xamante ni moom ñëpp xam nañu taxawaayam ak ni nga xamante ni noonu la toll ci mm. euh, euh, réew mi euh, ba tax xëj na sax lu tolluwaayam moo tax affaire yi jël ampleur bi nga xamante ne moom la jël démb ci guddi mais bijou ku ne xam nga ni que fake news du du lu bees en fait mais man xam lan moo ma jaaxal coow. pourquoi lan moo tax nit yi lan moo tax ba pare justement loolu pourquoi les gens ne prennent pas le temps de vérifier. mais loolu mooy parce que yow di nga tiital di nga di nga tiital ay njabootam di nga tiital ñi ko bëgg di nga tiital nit yu bëri xamoo ku nekk nan la koy recevoir donc moment boo xamante ni pourquoi course effrénée am scoop. maa ko njëkk a posté maa njëkk a ndax lan réseaux sociaux yi li ñuy wax naan. ça du ku <laughs> de leen fen la. ça s'appelle un vraiment tu mens. parce que man après j'ai vu ñu posté. pour des clics boo xamante pour des clics. man ay ay like. mais man après j'ai vu benn bennal leen ko rek xam ah, man après bi ko annoncé j'ai vu ñu posté fu ñu bind Golbert Diagne endeuillé il a perdu sa sœur donc xam naa sûrement endeuillé boobu les gens ne prennent pas le de lire mais boo déggul français nga tijji dictionnaire bi euh, les gens man man man sérieusement dama ci am anecdote ba nga xam ne sama sœur oh quand elle s'est mariée ñu bind elle s'est pendue nit dafa woo sam pap di ko jaale parce que il a compris que mm. sama bi dafa xaru. <laughs> donc donc dafa nekk yu nga xamante ne. les gens ne voilà voilà réseaux sociaux yi la. jarul ba ci ay information nit. c'est que nit yee dul porter plainte Mamadou Ndiaye. c'est ça le c'est ça le problème nit yi duñ porter plainte topp leen bañ sës. bu ñu leen ko doon def ba léegi ñu ngi xoolaat seen information yi. bu fekkee def nañ ay investigation mun nañ xamee exactement fan la euh, fake news bi jóge. mais bien sûr te ñooñu tamit est-ce que waruñu leen teg ay daan. mais bien sûr man je pense que à un moment donné dinañu dinañu àgg foofu. Euh, parce que quand même nit ki nga xamante ne moi par exemple quand j'ai appelé démb malal muy ree. Mm-hmm. ma muy ree ma ne ko yow kon li may vérifier du dëgg mu ne ma golbee rek nii ma jàkkaar lool muy attaaye di bége <laughs> dara dalul Golbert donc c'est moom tamit def na après lui aussi il a réagi doomam yi ku nekk def sa benn statut ne mon père se porte bien nangam nangam donc c'est des choses yoo xamante ne c'est avec l'avènement de l'internet euh, ci la gën a bëree euh, tey nit àdduna bi dafa nekk benn benn benn cercle bu nga xamante ne mm-hmm. euh, en une minute ñëpp dañuy jotandoo information bi ah. maintenant comme a dit tantôt Exidex mhm. euh, mensonge la maintenant à un moment donné nit ki mën na juum de bonne foi mën nañ ko ko jéggal am na ñoo xamante ne juumuñu de bonne foi parce que quand tu as la possibilité de vérifier et que tu ne vérifies pas parce que course la pour dem ci benn scoop wala man maa ko njëkk annoncé moi je pense que foofu la euh, problème bi toll non mais lii moom je pense pas que ni ay journalistes def nañ ko mais fii produit donc et si. non mais le truc sans prendre le temps de vérifier et je pense que tant que commencé wuñu buñ la waxalee loo xam ne du yow nga porté leen plainte topp leen ba ñu sës du ñu arrêté di génne information yu mel nii c'est que Sénégal dañ naan non jaru ko wala aw ma jotu toppante ak ñoom mais buñ commencé woon di leen toppante balaa ñuy génne te information dinañ ko vérifier ndaxte tey nga jël information bu mel nii nga annoncé ko si nit bu ñëpp xam au Sénégal ñii tiit xamoo ku nekk ban réaction lay am nga woo njabootam wala nga woo kenn wala nga dugg si site internet yi vérifier recouper information sax yomb pour rek pour rek vérifier woo kenn ci waa këram wala njabootam vérifier information dafa yomb mais ñii dañuy annoncé ba pare bëgg dem di vérifier contraire bi loolu kenn du ko jàmm ah parce que dañ naan na génn ba pare c'est malheureux Ce qui est malheureux. annoncé que Kia. Ils l'ont fait au président Diouf. Voilà. Mhm. Oui, c'est vrai. C'est vrai. je lisais les commentaires des gens, euh, comme si j'étais décédée. c'est pas une première, c'est c'est grave quand même. On les gens, on a tué tous les. Et en plus, bon, c'est pas les tuer les gens qui étaient euh, euh, mal choisis. Lenn ah, mooy lenn lenn lenn dafa am solo. c'est-à-dire qu'aujourd'hui le fait que dafa yàqal liggéey dafa yàqal liggéey journaliste si c'est vrai mm-hmm. Mm-hmm. parce que après les gens vont dire que ce sont les journalistes fekk journaliste man ñoom seen éthique li leen wax dafa leer mm. bu la neexee nga bañ a révéler euh, source mais mm. mais boo bindee dara da ngay dem nga vérifier mm. loolu la la sa éthique la vérification bi donc ñoom am nañu benn déformation xam te ñu ngi ci ñoom ba pare ça veut dire que aujourd'hui plus les gens ils montent plus les gens vont mettre ça sur le dos des journalistes or que du journaliste. Mm-hmm. journaliste 2.0 mais ñëpp même 2.0 tout le monde est journaliste am na benn xal bindukat baal ma rek am na benn bindukat bu récemment rek bu États-Unis mu ne du ku nekk ku yor sa page Facebook rek. journaliste journaliste nga. waaw jamono jii nag. yor sa page Facebook rek. journaliste nga journaliste métier la jàng mm. la nga am éthique ak déontologie mm. am li nga xamante ne nekk ci yow ba baaw journalisme je pense mm. da ah, parce que man dama bëgg foofu ñu taxaw ci ba seetal denn journalistes yi léegi ñi nga xamante ne ñooy 2.0 yi nekk ci internet bi c'est très simple aujourd'hui on sait que avec Facebook on peut faire des restrictions cest dire que ne tey mën nañu ku ibli sa page ñu ñëw xool euh, depuis la source ndax yow Euh, journaliste nga wala ce site euh, yow tu as aujourd'hui un papier qui justifie que toi aujourd'hui tu es habilité à aller à donner des informations et cetera et cetera nguur bi il mu jàppale ci loolu aussi. teg benn affaire buy ñu ngi ci et et sanctionner maintenant que la sanction peut aller hmm. euh, du du de la page ou bien du site. mais après bu loolu weesoo aussi il faut que ñu xamante ne à chaque moment change dafay répercuter ci population bi. parce que après les gens aujourd'hui am na ñoo xam ne mauvaise information bi la ñuy de intox bi nan la ndeysaan di ko véhiculer affaire bi di dem ils ont pas eu le temps de dem vérifier ji mais bon fake news moom euh, nit yi war nañu cee may jàmm. ñu vérifier seen ay informations avant ñu koy bu njëkk lu waaye ma sa dégg ci télé wala ci rajo. da nga naan dëgg la da nga naan dëgg la waaye léegi bu ñuy tooñ nit sax dañ naan ah waxi journaliste la. Eh, boo nee nit maa ngi ñëw wala maa ngi def naa nga trouve un peu partout les fake mm-hmm. news. Mm-hmm. mais euh, euh, quand du tax mu légal. du tax mu doon lu jaar du tax ñu banaliser ko normal warul tax itamit ñu ñu ñu ñu banaliser ko comme a bi mm-hmm. Bijou. donc je pense qu'il est temps quand même ay ay ay am ci. li ex doon wax léegi fi mu toll nii ñu ngi tollu ci assainir ak defaraat et puis euh, on espère que ak kuréel gu bees gi nga xamante ne moom lañ fi teg lépp jëm ci wàllu saytu yëf yi dina dina gën a am ay ay ay ay njeexital yoo xamante ne ku nekk ci ñun di nga ci mën a retrouver wu parce que c'est pas parce que tu as 5000 followers sur Instagram euh, tu en as oui. sur Twitter tu en as sur Facebook que toi tu peux te permettre de donner une information comme tu veux euh, je pense que ça quand même crédible ci réseaux sociaux ci réseaux sociaux yi d'abord loolu moo ëpp solo da ngay xam ñu xam kii mooy influenceur la kii blogueur la kii journaliste la blogueur la différence bi nag la nit ñi defagul mais il faudrait que ñun tamit ñu def ci suñu liggéey journaliste kan mooy kii te léegi dañoo am solo dafa am solo ci médias traditionnels yi mooy comme il faut ñun ñu def ci suñu liggéey pour nit ñi xam lan mooy différence bi c'est à nous de faire ça ndaxte euh, conséquences yi buy ñëw ñun ñëpp lay dalandoo ñun ñëpp la jël journalistes yi boole ci benn mbuus boole ci ñi nga xamante amuñu benn crédibilité dafa yomb xam nga fii boo toogee dama koy commencer sunu kër boo waxee ñu ne ah, mais il y a des brebis galeuses partout. bah oui y a les corps de métier bu ci nekk am na ay brebis mais ñi des ñi brebis yi dafa bëri de mais ñi resté ñi resté ñi am am te ñu ngi koy manière professionnelle te ñooñu dañ leen di jox cër ba léegi mais ci métier boo dem ci mënu naa citer fii fépp foo dem am na ñoo xamante ni dañuy yàq deru métier boobu te loolu mhm. il faut duñ ko wax déglu Youssou nee na du lépp luñ la wax nga daal di koy gëm les waxul xam naa ni naqari na leen naqari nañu suñu papa jooju yàlla yàlla guddal fanam mu toog fi euh, ak ñun ba ci kanama kanama kanama kanama kanam et puis ngeen arrêté face ñu parce que ça euh, mi ngi bëgg a metti vous allez me mettre dans yaa <laughs> yaa ngi il faut arrêter. il faut arrêter waaw recevoir sa